gannaaw ba tabaski bi weesoo ñii di jaaykati xar yi daal deseen desandi ñi jaay seeni xar rawatina ñi nga xamante ni demoon nañu aji ji ba ñib si nara amal li ñuy dippee nganale mu nekk lu am solo ñu ëpp si askan wi daal di ko amale. depuis tabaski bi bu léegi ñu ngi jindi xar. sax suur dañuy soxla rek par du xay suñ ku loolu sax dañuy ñëw rek di jënd ku dul màkk bi nii nii. dañuy ñëw di jin sax suur ñun su xari lañ nekk dañuy jaay ñun ñëw par ndànka ndànka rek par tuuti tuuti rek lañ ñëwee dañuy ñëwee rek dañuy jënd rek waaw bu ñu wax dara dañuy jënd rek waa am na ku ñuy ganel dañuy jënd bile jaaykat jàpp ne moom lii di jur gi dund bi nekk na lu seer lool fere bi dafa bëri sax ngooñ bi dafa seer ripa bi tamit dafa seer saa ñun dañuy jënd saaku ngooñ neuf mille saaku ripa dix-huit mille bokkut ak ndox yi ak yeneen fere sew ni li ngay fere ci ay transport boo xoolee daal liggéey moom fu mu nekk nii dafa nekk suñu métti mais métti na trop. góor gi di def opération tabaski jàpp ne moom lu sonal askan wi waaye jafe-jafe yi takku na lool. période bi comme li ma la wax rek vie bi moo cher d'une façon boo xam ne même boo seetloo dem màkk ñii dem di ñëw sax niñ ko doon defee événement sax wàññeeku na ba ci tabaski sax. tabaski sax boo xoolee ni mu daan def na événement léegi wàññeeku na parce que nit ñi ñoo commencé yeewu vraiment mbumbaay yu bari yeeg puukare yu bëri yooyu vie bi moo cher d'une façon boo xam ne poos yi attanatuñ ko. xar nekk lu ñu nemmeeku bu baax a baax ci marché bi waaye nu mu baree noonu la seeree nekk li nga xamante ni moo sonal yile jaaykat tax na yile jaaykat di xamle que ni lii di seeraay bi ak dundin bi nekk na lu leen sonal lool.